ñun euh, dañuy di association ba nga xamante ni mu ngi tudd sunu bibliothèque li ñu tax a jóg daal mooy jéem a xool nan nañu mën a jàppale askan wi ba bu ñu mën am fa nga xamante ni dinañ fa mën a ñëw xale yi mag ñi ak ñëpp euh, dinañ fi ñëw góor ñi ak jigéen ñi pour mën a am fu ñu mën a jàngee fu ñu mën a sàkkoo xam-xam fu ñu mën a euh, defee ay activités yi nga xamante ni dinañ si jariñoo donc loolu moo tax a jóg sunu bibliothèque mooy pour mën a xool daal nan nga mën a jàppale ñëpp daal si seen activités yi ñuy def bu dee xale si jàngam bi Bude mag buy wutum liggéey si wutum liggéey bi bude mag ba nga xam dafa retraité bëgg ñëw di jang di xol ay ay journaux yoy yëpp dal da nga la xamanteni mom lañu la ñu euh, à travers bibliothèque sunu bibliothèque loolu mo lañu ñu tax donc liñu def tay si Bargny moy dañu amone ben euh, partenariat ba nga xamanteni dañ ko am avec la mairie de Bargny ba nga xamanteni dañu ñu abal euh, bâtiment municipal bi nga xamanteni mom lañu def médiathèque bi pour que ñun ñu jël wutu ji xaaliss wutu ji ay partenariat yi ya nga xamanteni dañ lañu ñu permettre ñu mën a am xaalis ba nga xamante ni dinañu mën a yi nga xamante ni moom la soxla pour que euh, mu doon une médiathèque ndaxte médiathèque boo ko waxee dafa di la nga xamante ni mooy bibliothèque ba nga xamante ni dafay am ay livres yi nga xam ne dañuy ñëw di ko lire mais dafa am aussi la nga xamante ni euh, day ay ay ordinateur di ay tablettes yi nga xamante ni nit ñi aussi mën nañu ñëw lire si mais sàkku si xam-xam aussi loolu moo ñu tax a jóg donc loolu mooy euh, liggéeyu sunu bibliothèque muy liggéey ba nga xamante bi ñu koy def dañoo commencé am Euh, déggoo ak euh, euh, maire bu Bargny pour que ñu abal ñu seen bâtiment bi mais ñu jóge si loolu aussi ñu dem xooli ji ñi nga xamante ni ñoo am xam-xamu médiathèque muy juntu institution yu mel ni institut français pour que ñu jàppale ñu si ñu mën a sàkku seen xam-xam jël andi ko si fii si médiathèque bi ñu jóge si loolu aussi dem wuti ji xaalis ba nga xamante ni moo ñuy permettre ñu def liggéey bi ñu fi def pour loolu nag dañoo dem gisi ji ay entreprise yi nga xamante ni ñoom nangu woon nañu ñu jàppale nañu si mais ñëw aussi gisaale ay waa baag ñi ay waa Sénégal yi nga xamante ñoom génne nañu seen xaalis gis ne lii kat am na njariñ si askan wi ñu jàppale ko loolu moo tax ba mën ñu mënoon am xaalis bi ñu am a def li ñu def tey euh, si yi di ñëw continuer si d'autres régions du Sénégal euh, en dehors de Dakar pour que au moins yi nga xamante ni dañoo mel ni baag ñi xamante ni dañoo am ay ay ay potentiel ñu am si am aussi ay difficultés ñu man a am ay ay ay ay bâtiment yu mel yi nga xamante dana permettre dana jàppale seen xale yi dana jàppale seen góor ñi seen jigéen ñi seen mag ñi seen ndaw yi pour que ñu mën a sàkku xam-xam mën a def li nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a avancer